këcc te boobu xam naa li ma yore sama loxo xam naa ne am na mënuñu bu mu téye xam naa ne laboratoire bi wax na ko waaye yemee na secret de l'instruction mënu ko woon wax tey nag mën nañ ko wax ndax lépp leer na tey fi mbax na nekkee benn pareegu ma donc dama leen di yëgal ni tey lépp leer na am na ñu waxoon ni Mamour Diallo moo jël Adji Sarr ci oto bi yóbbu ko CTO loolu kàcc la tey leer na ne docteur Guèye bi nga xam ne ñëpp xam ne Pastef Kolda la moom nee na man suma xarit maître Gabi moo ne ma am na lu xew am na xale bu jigéen boo xam ne dañuy yegg ci moom ba bëggoon comme couvre-feu bi yow docteur ga am nga droit génn doo ko jëli ñu xool ko nga xoolal ma ko ngir yàlla mu dem jëli ko ànd ak si amen may mi xam sur bote fi mu nekk Sidi Ahmed Mbaye yóbbu ko Sweet Beauté xale bi génn ñu yóbbu ko biñ ko ci tàng tàng bi docteur Gaye de prélèvement jox ko laboratoire bi nekk CTO ni ko xoolal ma xale bi lan moo nekk ci yaramam ndax am na ci nekk ndax dañ ko tëddee wala déet ca booba Sonko neewoon na moom xamul xamul Sweet Beauté mosuma fa teg sama tànk xaw ma aji saarit far ma ko ci Facebook du moo ko bindoon ci page am ñëpp gis ko ba Bassirou Diomaye Faye nee na Sonko mosu fa teg tànkam ba gis ngeen am na ku fi taxawit beneen militant am porte parole am nee na te na kaamil dóor waaye sama senegal yéen rek waaye nit bu fenee yéen a ngi di ko gëm rek kenn ku fen benn yoon rek la su man ñiit bu ma gisee ñuy topp ci kooku di ko gëm bay dee di mu fen a fen ba ñëpp teg seen bët man damay jommi jaaxal ci Sénégal may oo sama xale sama jarbaat samay doom yu gën a yeewu presse bi gëm la woon nañ leen man gis naa benn gis naa benn journaliste bu doon génn benn benn médical di ko wane ak benn journaliste boo xam ne émission chaque jour mu ne xool leen kii dañ ne dañ ko laalee yàgg na xale bu jigéen bi waaw xale bu jigéen bi dañ ko laal ko laalaat ko kon ba mu roode loolu kon boo nee perte na ndawam mooy kenn laalu ko kenn violé ko xamoo dara yow moom nee na dañu ma yàgg laal viol répétitif mooy laal bu amul bu amul jeex waaw yow nga yow nga daw jël PV naa gis ngeen de laal bi kii nekkatul nekkatul xale loolu du problème bi problème mooy ndax yàgg nañ ko tëddee wala déet waaw ku tëddee lu yàgg kay xanaa di nga roode boo roodee kay doo gaañu boo roodee ku yegg ci yow du la gaañ loolu tey moo fekk tribunal mu ne tëddee dama juróomi yoon fexe bis yëpp ñu ne comme gaañowul rek kon kenn violé wu ko xam nga loolu mooy waxi dof waaye waxi dof fi xam nga bu gën a garaaw mooy ki kii kay def testa leen mu bañ yow nga ne defoo dara kii da nga yegg ci moom pour mu leer comme bis bi nga yegg ci moom ci guddi ga même pas quatre heures de temps ci dégg ngeen ñu doon wax lu leen neex naan nee nañ ay ay ay ay bis yu bari xale bi sëyul kenn waxu ko de ko da ngay kàcc tey li fi kay wax kay ne bi mu ñëw ci tàng-tàng bi lan nañ def prélèvement ko xam ne laal nañ ko biñ ko laalee mu ne mu ne ci ngoon ka résultat bi génn résultat laal bi lan la mooy am na lu nekk ci moom lu ñuy wax spermatozoïde vivant mooy man yu wax ne mu ngi dund ba mën a am doom nee na mu bindal ko pilote du lendemain waaye ñu taxaw ci wëy télévision yi émission yi ku gën a riis sa làmmiñ nan waaye certificat médical bi kay seetal la Sonko waaye ñi duñ xalaat seen bàmmeel ñi duñ xalaat seen bàmmeel preuve bi mooy mooy test ADN bi bi mu def ci man yu buñ ci guddi gi jël nañ ko ci yaramu aji te ci kenn kenn rek ci guddi gi dafa tëdd ak moom rek docteur Gaye jëli ko léegi nag kon dafay yoon ñu yaakaar ne kon condamné ah Sonko pour fukki at dix ans d'emprisonnement minimum mooy dix ans mooy crime viol dañ ko criminalisé Sonko war dañ ko tëj fukki at procureur loolu wax mais li ñu jaaxal mooy procureur daf ko ba pare xaw a daw res tuuti ginnaaw mu wax dix muy bëgg xaw ma lu mu bëgg naan am na bu boobu àndul te moom li mu wax dafa leer nañ procureur dafa teg dix yi ci lu leer ba pare ëlbatiku ne bu dee fekkee yow juge bi gisoo ne loolu am na nga wane ne xale la boo xam ne dañ koo jaay doole teg ko dil yegg ci kawam mën mën ko loolu man d'accord ma ci xam nga man bu ko def cinq ans di wàññi waaye sena foo demee prison be am nañu fa am dix ans sonko moo leen gën lu ñu war a ragalee sonko lu koy bëralee loxo gis nga euh, gis nga sutoo nduur maa ko defaan ñu génne ko man mii maa ko acquitté te dañu waxoon ne am na certificat médical bu dugal te certificat médical bi li wax mooy kenn la kenn laalu xale bu jigéen bi waaye am na ñuy dem ci presse partout naan Sëriñ Ndour am na certificat médical bu ko dugal xooli dañuy manipuler nit ñi trois médecins ñoo ko si woon Sëriñ Ndour ak benn professeur agrégé ñu ne xale kenn laalu ko ñu gëmloo nañu ni Sëriñ Ndour dem prison audio bi séeréer ñu ne audio bi dugal na ko fi mu ne dañ négocier waaw mu ne man defuma dara ci audio bi séeréer la waaye bu dee xaalis ngeen bëgg ñëw leen ma jox leen xaalis ngeen mu leen yàq sama der bi jigéen bi du ko laal mukk soxlawu ma ko kooku fu mu ne fu mu nee nga xee ne man la nit ñi nañ xalaat seen bàmmeel moo tax ma ne si toon duur a ngi nii ñu tëj ko kaso ba bàyyi acquitté ko deful dara Cheikh Yérim Seck ak ñeneen tëj la ñeen fi kaso ci pour viol viol crime la ku ko def dañ lay tëj bu ñu la ko accusé dañ lay tëj mel ni mu rek moom kenn moom dong moom rek dañ fi accusé de viol ñu prélevé sperme CTO hein déposé ko te kenn arrêté wu moom dañ ko faral kon. Ousmane Sonko ni koy dimbalee ni koy jàppalee ëpp na mu taxaw naan dañ koo bañ Macky Sall la koy xeex te moom dañ koy defal traitement de faveur si tool Ndour APR la def na neuf mois prison. Euh, mais c'est vrai xam nga yow Khalifa Khalifa dama laa bëgg ndax bu ñëpp dawee yow yaa assuré. yàgg daam jag yéen a assuré woon ak ak ak waaw yéen ñaar rek la ite ak leeral TFM dafa dawoon res keroog ñu bëri dañoo ragal génne affaire u aji saar ndax dañoo ragal booy yi ak bandi yi saagakat yi ak reekat léegi nag yow xalifa xam nga ni léegi encore <laughs> dañu wax en tubaab euh, dafa ni avec sans péril on triomphe sans gloire am na benn poète bu ko wax ñun amuñu lu ñu neex ci côté boobu bu ñu sañoon Ousmane bu Sélé mi day taxaw bu yoree bañ a dugub ñu xam bu yorul bañ a dugub ñu xam ñu xam yan argument la am waaye dafa yombaloon nga ne ñëwuma xale yi dee leen sama bundu kër boo ñëwoon day simple ma laajal ndax la yow yaa def lii ndax bis bi yaa nga woon yaa nga ndax bi nga demee ndax sa maniwu lañ jël wala jëriñu ko ndax keroog yëg nga ni docteur Gaye bi nga xam ne sa militant la moo jël sa woon euh, aji saar bee boobu xamatoon ni patron am moo am séq ak aji saar xëy lu doy war a gi noonu docteur Gaye bi jël si aji saar xamul ni patron ci politique moo am problème ak aji saar dañ de ko rek am na xale bu yegg ci moom benn xaritam wax ko ko xamul nu mu demee mbir yàlla la tey mu ne fekk nañ maniw kaw aji saa loolu la balaasaar bi wax waaye kon kay xam nga ne xalifa mbir mi leer na nañ mbir mi leer na nañ ti li procureur wax ñun d'accorduñ ci ndax crime dix ans nga war a am ñu bëri am nañ ko fii ñu nekk prison Ousmane Sonko gënu leen ndey gënu leen baay masu gën ñëpp war a yem devant la loi amul ku ñu war a teg ko ci kaw loi bi. kon nag tey am nañu mbégte quand même c'est vrai ñëwuñu bu sañoon ñu ñëw ñu duma leen duma yéen bëgg duma waaye comme daw nañ it moom ñu tribunal bi ndax Ousmane Sonko moo ni man du ma wuy seeti tribunal man justice sénégalaise amatuma affaire ak moom man wuy du ma wuy jëtti justice man faaleetuma justice ay maj saaga magistrat kon xam ngeen ni. le premier juin maître luy xew. magistrat yi le premier juin wax liñ gis tey xam nga ne plaider na ñun démocratiquement ku nekk ni nga ko santire ku nekk wax li mu xalaat ci dossier bi di ko daree ci aji saar ci Ndèye Khady Ndiaye seen nekkin ca dëkk booba Sweet Beauté xaw ma raay mu neex la xaw ma nu mu tudd Sweet booba la fa doon am en tout cas sori naag jaabu yàlla. dafa doon am ci kilifa gu bëgg a yore réew sori naag njaboot gi jaamu yàlla wane exemple xale xale yi waaye koo xam ne ci débauche nga nekk ca dañ lay ne xadi njaay ak ki nga xam yaay complice am ndax dafa bëggoon raay mbelle loolu yëpp bu amee ah xale yi yeewu nag ba premier juin verdict bi génnee jàmm rek am su réew mi bu kenn taal démocratie rek avocat bu ne ni mu rek la waaye principal accusé bi amul amul contradiction sonko la mooy ndeyu mi de avocat yëpp nañ ci ni lépp moom la moom la moom la moom la jërëjëf jërëjëf voilà yéen a ko déggandoo noonu mu nekkoon la réaction de maître El Hadj Diouf euh, avocat